xam nga interview bi dañuy bëri. Mhm. da nga de telle sorte que après. xel day defe naa ngi fàttaliku lool. waaw xel parce que chaque fois on te demande l' de ces jeunes. Mhm. parfois tu da ngay cité ñii yenn saa yi nga fàtte kenn suba nga cité ñee fàtte keneen. mais c' toujours toujours est-il que ñi nekk tey si nouvelle génération dans l'hip-hop sénégalais tey même booy gëmm da ngay gis ni ñi ñoo nekk quoi. <laughs> mënoo leen lim di leen tëb. maintenant léegi si biir ñoom tamit. am na si ñoo xamante ni ils sont des innovateurs am na ñoo ni. gëm nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ko en vérité du succès kese nekk na léegi tout sérieux si ñoom. Mhm. mais donc aw ma si xar ma yàlla d'autant plus que ñoom ñëpp franchement. ñëpp nga yemale quoi voilà a de très bons rapports. ñan nga gën a gis si rapport yi booy yi nga xamante ni ñoom ñoo am avenir tey tey mun nañ dem ba yegg fi Fata yegg. non xam nga avenir euh, ci musique c'est autre chose beneen affaire la Euh, tey boo xoolee MHD. muy mhm. def tournée àdduna bi mi ngi doon joué temps yàggul rek fii nii am Washington xaw ma fan. ta nekk yaa seetu di seetal feesal léegi ay saal moom ça fait même pas cinq ans même pas dix ans soo ko doon wax da ngay nekk artiste du ko gëm parce que du woon mhm. passion si moom mhm. c'est un livreur de pizza en France et donc du coup euh, bi mu ko commencé di ko def aujourd'hui ça lui a ramené un autre truc c'est-à-dire musique c'est pas que ñi koy def ñëpp ñoom ñoo si am succès et réalité aussi sa da nga koy bëgg am talent te doo si am li li li li ngay expect. Mm-hmm. Euh, Fada gis nañu ni blanchissement d'argent yi bëri na ci waykat yi ah Euh, ay kii nu mu tuddati sax booy bi. Ngaaka euh, Blindé. Uh-huh. Euh, dégg nañ fii Thione Seck mujjul fenn. Uh-huh. ñu dégg fi kim te moom moo di Wally Seck ak rakkam ja uh-huh. mujjul fenn. Pape Diouf dégg nañ ko fi mujjul fenn. Pape Diouf ñoom ñëpp dégg nañ leen ci blanchissement d'argent. tey nag Ngaaka Blindé moo dugg. Oh, ñooñu ñëpp dugg ci blanchissement d'argent ba génn si. Ngaaka ñëw est-ce que du Ngaaka dafa ñàkk ginnaaw wala banlieue bu mu dëkk la. wala oh, rapport yi ñoom wala yenn wax yooyu moom su ma amul su ma amul comprendre bu baax du ma si bëgg sori mais en vérité uh-huh. je sais que y a son manager qui chaque fois daf may def ay signes si internet bi manager nga ak Blindé waaw kon yow li nga ci xam war na bëri non non daf may def signe genre bien avant le problème sama sama sama waay la sama boy la quoi dama uh-huh. la et tout may wax ni may il aime bien ce que je fais tout ça uh-huh. donc dañuy vite fait échanger mais je veux dire bi affaire bi amee juste un clin d'œil wax naa ko laaj naa ko mais mu wax ma affaire billet d' affaire vidéo yu ñu doon waaj a def pour ñu photocopier ay billets. Mm-hmm. et donc euh, après dans le fond munoo xam qu'est-ce qui s'est passé mais euh, je te dis un truc dafa am ay mbir yoo xamante ni quand on célèbre day ñëw sa kanam. mooy mm-hmm. bu ka ngay dégg nga affaire ay franc-maçonnerie mm-hmm. ay trafic. ay nit yoo xamante ni ils ont toujours envie de faire passer des choses. à mm -hmm. travers les célébrités. Mm -hmm. et y qui parfois da leen di intéressé y en a qui y en d'autres non. et mhm. donc aussi euh, le plus important c'est que. aussi les artistes ne doivent pas être en une position où mhm. lu ñu lu ñu wax wala ñuy tax rek mu mel ni lu leen lu lu waruñu vulnérable à ce point c'est-à-dire waruñu nekk ñoo xamante ni ku ñëw rek ñuy toucher mhm. parce que tey boo nee Euh, on dañ koy dégg ci diw dégg ko ci diw boo limee ñaar ñetti musiciens. day donc les musiciens sénégalais sont au nombre de des mille des milliers. Mhm. Euh, y en a pendant ce temps des gens qui sont des autorités. des mhm. ay nekk ay politiques ñoo xamante ni ay. ay ay footballeurs wala ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ils sont parfois dans des dans des salles de rang. Ah, ok mais Sénégal aussi li la ngay comprendre parce que les artistes n'ont pas de couverture. y a mhm. quasiment rien qui qui est là comme un garde-fou. qui demande à ce que ñu jox plus de respect aux artistes. alright jërëjëf mbokk yi di leen fàttali rek mu ngeen woote ci numéro bi 646 807 6105 di leen fàttali rek mbokk yi mu ngeen woote ci li nga te moom moo di whatsapp bi euh, ñi nga te ni ñu ngi nekk euh, euh, si biti mun nañu wootee li nga te moom moo di whatsapp bi 646 807 61 05. 646 807 61 05 di leen wax rek ni tey gis ngeen ndaanaan bu max la ñu am muy Fata El Président euh, Fata sànq am nga loo wax ba am foo choose like nga ne form formation yeeg affaire yooyu noonu. Hmm. dégg naa loolu dafa tàmbalee dugub bi Sénégal. que hmm. waykat yeeg. Hmm. rappeurs yi même sax sa sa booy booy boobu noonu ñu laal sànq. dig dundi gis dégg nañu vidéo boobu noonu. ak aar beeg yooyu noonu. am na lu si loo xam te ni mu ngi ciy joxe loolu quoi genre xam nga. forme mm-hmm. formation kenn xamul daal yàlla moo xam. Mm-hmm. yow ban gis-gis nga am ci loolu. bon xam loolu loolu tey àdduna bi fi mu toll da gis ni day propagé wu de plus en plus fépp lay dem si àdduna bi man lii lii yooyu wax yooyu su ma koy dégg parfois dama naan. existé na Sénégal depuis longtemps mais dafay am ñu muy ñu muy approché am ñu mu dul approché. Mm-hmm. mais boo dee siiwee moom c' est clair que dañ lay. mais yow jaaragul ci yow gars yi. si si am na gël donc je me rappelle am na gël boo xamante ni daf ma naan woo tout le temps di ma bëgg invi di ma invité si ay affaire loge yi quoi. Oh. mais ay loge lay commencé pour nekk loo xam dañ la koy invité pour nga ñëw rek pour intéresser wu de ce qu'ils font ay détails lay nekk. au départ du loolu noonu mooy dugal booy. mais loolu la mais loge la par chambre la par étape la mais léegi nag mais ça ne ça ne veut pas dire que quand même. parfois da ngay xool ay logique xool tuuti ce qui ay ressemblance nga war ko jox ay destination purement maçonnique quoi. Mhm. maçonnique donc euh, je pense que lu lu ñuy war di tey la. Mhm. man daal bëgguma di wax lu ma maîtriser wul. Uh-huh. xam nga mais je sais que ay ma euh, nit ñi a des artistes y a des célébrités. qui mais mais mais yow mais am nga loo am nga loo parce que am nga ñu la doon woo la jéem a trompe. am na Sénégal depuis longtemps. Uh-huh. ay loges des gens qui t'invitent pour créer ay loges dafa am. ay secte la dañuy créer comme tarixa noonu la mel en temps hmm. noonu la mel dañuy am seen affaire am seen gëm-gëm di la woo di la invité ngay ñëw. tarixa yi dañuy def lool. non non ce que je veux dire c' est ah, foofu laa bëgg waxee. oh ok maintenant lay jëmee ak fi lay yóbbu. Hmm. c' est au fil du temps ngay xam évolution fi mu jëm. laay laay da nga bëgg wax ni par étape étape la. ngay évoluer si biir parce que dañ lay gëm loolu leneen. gëm nga ni dund gis moom mi ngi ci biir. non non gëwuma ko xaw ma si dara tamit. góob ma ko franchement. dégg naa boo yi bëri ñoom ñu ngi ci biir de fi mu nekk nii. Ah. affaire boobu nag comme yow ni la contacter mën nañ ko contacter moom tamit. wala bien tamit moom wayam bu mu génnee bees ma jaar yëpp nangam ak nangam wax. waaw ah non xam nga nag artistes aussi il faut pas que ñu leen di juger noonu parce que ñu ñëpp dem nañ école jàng nañ ay figure de style jàng nañ xam nga xam nañ naka la ñuy mën a jël benn benn image wala benn histoire solal ko benn nit. Mm-hmm. yenn saa artiste bind benn affaire comme un acteur. yenn saa am acteur bu joué benn rôle pendant longtemps fu ñu ko rombee si mbedd mi di ko xoolee comme ki ko def ko tu vois. Mm-hmm. et donc loolu la euh, tey jii booy bi mën na bind ay affaires yu bëri imaginer imaginer yu bëri nga nii ku ko gis xalaat ni moom la. jaajëf mm. Fata ñu dellusiwaat tuuti ci plateau bi may mbokk yi. di woo ci plateau bi incha allah.